أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom fa ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi ginnaaw loolu noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi ba tey nu toll ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey benn aaya muy aaya 171 aaya bi sunu borom mu ngi ñu ciy jàngal mbir yi nekk sunu kanam mooy xurmatul xuluwu fi diin aaya yi nekk sunu kanam mu ngi ñuy jàngal ne araam na ci ñun ëppal ci diine is hiya min al asbaab al mujiba lil ibdaai wa dalal lu tax ëppal ñaari mbir lay jur day tax nit dugg ci bidaa waaye day tax nit daal di réer ëppal mbokk yi baaxul ci dara te xeet wi di xeetu lislaam yàlla def nu tànn def nu xeet woo xam ne dañoo digg dóomu ci sunu lépp moo tax waruñu ëppal ummatam wasata la ñu yàlla tuddee xeet wu digg dóomu waruñu ëppal ci bëgg àdduna topp ko ba na jaamu yàlla waruñu ëppal ci topp yàlla tamit dem ba dugg ci yeneen i mbir li ñu yàlla sant foofu lañ war a yem waruñoo yokk waruñoo sos waruñoo wàññi waaye nanu yëg ne yàlla li mu bëgg ci ñun roog lool rek la bëgg ci ñun su fekkee xam nañ lool rek danañ mën a jaamu yàlla te jaamu yàlla gi dañ koy teg ci lu leer du ñu ëppal du ñu sos du ñu wàññi du ñu jéggi dayoo kon araam na ci ñun ëppal ci diine loolu ñu naan alxuluw ëppal ndax sabab la loo xam ne bu nit ëppalee day tax mu daal di réer day tax nga jéggi dayoo day tax dootoo dal tey loo def da nga koy xeeb ndax da ngay jàpp ne man lu bari laa war a def fekk soxla woonu lu bari yow liñ la sant rek lan la sant ñaareel bi mooy hurmatul qawlu ala allahi taala bi duni ilmin mutlaq araam na ci ab julit muy wax mbir mu jëm ci yàlla fekk amu ci xam-xam araam na ci ñun nuy wax ci diine jëmale ko ci yàlla te amuñu ci benn xam-xam wal qawlu alayhi bi ghayril haq bi suwarin xaas wala ñu wax jëmee ci yàlla wax joo xam ne du benn dëgg ñun ñi koy wax xam na ne dañuy fen loolu mbokk yi dafa araam comme ni ëppal ci diine araamee ab jullit suy wax ci wàllu diine ci xam-xam jëme ko ci yàlla jëme ko ci yonent na wax dëgg na wax li nga xam ne buñ ko waxee foo ko teg mu daal di génne dalilam mu wax aaya wala mu wax sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñetteel mooy bayaanu al mutaqad al xaq fi isa ci aaya yi nekk sunu kanam yàlla day leeral dëgg dëgg dëgg pas pas bi nasaraan yi gëm isa fas waaye pas pas bi yahuud yi nga xam ne ñoom dañoo wàññi ci mbirum isa pas pas yooyu pas pas bi nga xam ne nasaraan yi dañ koo gëm ci isa te mooy wa annahu abdullahi wa rasulu ne moom doomi yàlla la julli ni ñoom ñoom ñoo gëm ne isa moom jaamu yàlla la yonent yàlla la kaana bi kalimatillahi dafa nekk kàddu yàlla subhanahu wa taala boo xam ne yàlla moo yónni jibril jibril ëf ci dindi baati mariyam ci mbubb ma mu daal ci sosu kon pas-pas yi dana leer ñetti pas-pas nasaraan yi seen pas-pas dana leer ci isa waaye jullit ñi seen pas-pas dana leer ci isa waaye mbokk yi yahuud yi seen pas-pas dana leer ci isa nasaraan yi dañoo ëppal ci mbiru isa lan lañ wax ñu ne doomu yàlla la yahuud yi wàññi mbiru isa ñu ne lan doomi njaaloo la yi julli ni ñoom ñoo respecté ñoom ñoo yor pas-pas bu wér bi ndax ñoom ñoo ne moom day jaamu yàlla la yonent yàlla la baatu yàlla la boo xam ne moo ko sànni ci Mariam ci baatu kun fa yëkkun mu daal di sosu mbokki jullit yi bu dee ñetti mbir yooyu dong mooy li ñuy jëlee ci aaya bi nekk sunu kanam bi nu war a jël tey bismillahi rrahmani rrahim يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سنبرم يا أهل الكتاب القرآن بمدك boo déggee yaa ahlal kitaab ñaari nit dong la ñuy waxal mooy yahud ak nasaraan am na sax ñu wax aaya bi nasaraan yi rek la yàlla di waxal waaye li wér mooy ñoom ñaar ñëpp la ñooñ ngeen di jàng ci nasaraan ñu ne les gens du livre yaa ahlal kitaab ee yéen ñooñu téere almuraadu bihim huna an nasara am na ñu wax loolu waaye li wér mooy ñoom ñaar ñépp la lu tax ñoom ñaar yàlla woo leen ne leen ee yéen ñooñu téere dafa am lu ñu def lu jaaduwut dafa am lu ñu wax te waxuwut dafa am lu ñu def te defuwut moo tax yàlla woo leen mu ne leen laa taxlu fii diinikum bu leen ëppal ci seen diine ji nag diine yàlla moo leen ko jox waaye kenn amul droit ëppal loolu la tubaab bi naan fanatisme loolu même tarixa yi sax da nga ko ci gis da ngay gis ku ne ñun dañuy gis yàlla ëppal la ñun ay yàlla lañ ëppal la ndax xam ngeen ne adduna bi kenn du fi gis yàlla waxuma la nga gis yàlla mais yow sa bopp mënoo nekk yàlla kon li la dugg ba nga wax loolu mooy da ngaa ëppal waxuma sax côté yooyu mais am na ñeneen ñoo xamante ne ni nu bëggee yàlla wala ni nu bëggee yonent bi leneen wala ñeneen lañu raw daa ngeen ko ci alxuraan yàlla mu ne am na ñoo xam ne dañoo jël leneen lu dul yàlla bëgg ko yuhibbunahum ka hubbillah dañoo bëgg ñooñu comme ni ñu bëggee yàlla bal sax ñoom ni ñu bëggee loolu moo raw yàlla nag woo yahud ak nasaraan ne leen laa taxlu bu leen ëppal lan mooy ëppal maa maana alxulu fi diin lan mooy ëppal ci diine mooy mujaawazatul xadd mooy fi nga waroon yem nga ëppal ko da nga waroon julli géey timis ñaata raaka nga dem julli juróom ñu ne lii rek nga ne ah dama bëgg yàlla bindal ma tiyaaba da nga waroon woor fanweeri fan nga woor ñaata fan ñeen fukki fan wala fanweer ak benn wala fanweer ak juróom ñu ne lii nag tiyaaba rek laa bëgg nag tiyaaba rek waaw waaw ëppal nga de maanaam diine ji kenn waru ci ëpp loolu mooy mujaawazatul xadd liñ la wax rek yemal foofu bul yokk bul wàññi ëppal nag dafa am ay façon anwaaul xuluw am lu borom xam-xam yi di wax façon yu ëppal yi ñaar kesa la al xuluw nawaan ñaar la itiqaadi wa amali pas-pas la ak jëf nit day ëppal ci pas-pasam nit day ëppal ci jëfam ëppal ci sa pas-pas mooy comme nasaraan yi liñ def ak yahud yi mooy lan isa doomu yàlla la xam nga loolu ëpp na voilà loolu mooy ëppal ci pas-pas bi ëppal ci jëf mooy lan fu la war a yem loo doo fa yem lu la wax loo doo ko wax da ngay wax leneen loolu nag ñaar yëpp benn baaxu ci ndax dafay yàq jaamu yàlla mbokk yi waaye ëppal dafa am ay sabab dafa am asbaabul xuluw koo gis mu ëppal ci diine rek am na sabab sabab bi bokk na ci daaful basira bi xaqiqa waa ji dafa néew xam-xam xam-xam bi moom moo néew ba mu ëppal loolu da nga koy gis am ñoo xam ne amuñu benn xam-xam dañuy jàng benn hadis rek wala benn aay rek bugg ci rey bugg bugg ci bugg ko def diine fekk waxoon naa fii ne lépp nu nit di jàng ci diine wala di ko jàngale amoo droit yóbbu ci benn hadis wala ñaar sifatu salaatu nabi ku koy jàng ñaata hadis la benn la ëpp na ko anaka mën na juróom fukk wala moo day ñeen fukk da ngay dajale lépp yal na yàlla yërëm Cheikh Nasiruddin al Albani dafa dajale lépp daal di koy def benn téere tudde ko sifatu salaatu nabi noonu la amee sifatu wudu nabi noonu la amee sifatu xajju nabi noonu la amee ci lépp nag ba ci yére yi ñuy sol léeg-léeg benn xale ne ma yow yow sa tubéy bi dafa gudd de ma ne ko waaw waaw bu laal suuf sax te am bakkaar lu tax diina la dafa am mutlaq ak muqayyad sooygul foofu doo xam ñëpp ci ñun nag dañuy gis kaaba yi ni rek daal ne ku sa tubee ëpp am nga bàkkaar déedéet suñu paree ku soxla taxi ma jox la lépp dafa am muqayyad am mutlaq bu fekkee ne nit ñi géeju wuñ ci loolu dañuy am problème loolu mooy waral ëppal souvent bolof xam-xam yi dañuy wax ne as baaxul ci dara as ñu ne fenn dong la baax ban ci gor kii de as gor la waaye as xam-xam baaxul ndax da ngay réer as ndox doo set as xaalis da ngay fuy te amoo dara ah as xam-xam nu mu toll dafa tuuti as xaalis ñaata la weccit la nga bëgg a xeex ak borom milliardaires yi du dem kon da ngay peeg mbir yi loolu la ñuy wax dooful basira kii gis-gisam dafa xat dafa tuuti looloo tax lu mu def loo ko loo ko jural mu ëppal keneen ki xillatul badaayi fil fiq jumtukaayu fiq li ñuy déggee diine la yorul mooy ahkaam yi mooy li ma doon wax sànq xamul texte yi xamul mutlaq xamul muqayyad xamul mantuq xamul dara moom texte bi rek la jàng ci kaw terminé yoonam nekk ci déedéet texte boo gis dafa am lu ñu ciy génne aaya boo jàng dafa am lu muy jàngale xaddis boo jàng dafa am lu ñu ciy ballal lu ñu ciy génne moo tax yenn saa yi ñu ne la foog nga jiital ahkaamu xukmu shar'i atte diine yi boo xamul ahkaam yi misaal benn waaye ne la wo koor farata la wala sunna la la yox farata la su ko nit bàyyi day am bàkkaar waaye bu nit ki amee ngant nag ndax danga naan ko wallahi boo warul jahannama nga jëm déedéet am na léegi lu ko génne ci fard moom yóbbu ko ci beneen bunt day tukki ndax dafa war a woor déedéet moo tax saxaaba yi ba waa ji bopp bi amee góom mu dem jihaat ñu dóor ko jaas ci bopp bopp bi toj mu ñëw am janaaba gaa yi ne ko da ngay sangu de da ngay sangu mu dem sangu góom bi infecté mu daal di dee yonent bi bu mu yëgee xabaar dana ñi ko sanguloo ñoo ko rey parce que warul woon sangu lu mu waroon def dafa war a tiim chaque jour néew xam-xam day tax nit ëppal ci diine ñooñu sanguloo ko dañoo ëppal parce que waruñu ko woon sanguloo beneen bi mooy ata amuq fi maarifatu asraari am na ñoo xam ni xóot lu jéem a xóotal xóot ñu waa banu israel a defoon yàlla ne leen rey leen nag ñu nekk fanaan lan nu muy mel ak wax ñu couleur beeg di jéem a xóotal mbir mi xóot na xóot di luqati ci biir loolu ab jullit du ko def benn waaye ñu ne yonent bi aj aj ñaata la yonent bi na pat aj ñaata la yonent bi na pat aj ñaata la yonent na pat ba ci kanam yonent ana ki doon laaj aj ne maa ngi nii yonent bi ne bàyyi leen laaj bu bëri su ma ne woon téeméer la rek ku ko ajiwul am bàkkaar su yàlla ne benn yoon benn yoon la waaye dafa am nit ñoo xam ne dañoo bëgg xóotal mbir mi waaw léeg-léeg nga dégg kenn ku ne la waaw lan moo tax ñuy julli lu tax ñuy julli ah yàlla ko xam yàlla dafa santaane julli leen julli leen te zaaru laaj yooyu sax kenn waru ko laaj waaw wala fi dañuy wax ne sa papa bu la waxee jox ma satala bi est ce que da nga naan ko papa lu tax ma la koy jox est ce que loolu mooy teggin du teggin papa ma jox la satala bi sa papa ne la jox ma satala bi nga ne ko lu tax ñu lay jox satala bi boo dajeeg paa bu réew nga am problème de dina la wax loo xam ne soo liggéey dootoo laaj laaj bu mel noonu kon loolu mooy ata amuq fi maarifatu asraari bokk na ba tey ci alxuluwu mooy aljahl réer day tax nit ëppal réer la ilaha illallah ñi bëri ci ñi réer dañoo ñu ñu ëppal dañoo réer billahi wallahi taala loolu moo tax ñu dugg ci loo xamante ne di ci sonn di daw di def yu kenn xamul fekk amuñu benn tiyaaba réer rek moo tax ñuy def loolu beneen bi mooy daaful basira bil waaqi wal xayaat wa taarix wa sunanil kawn am na ñoo xam ne li tax ñu ëppal mooy néew xam-xam surtout nag contexte xamuñu contexte ñoom moo tax ñu ëppal xamuñu jamono ji lu war ak jamono ji lu warut ci dund gi nuy dund chaque jour jamono ju nekk borom xam ne li kulli maqaamin maqaal place bu nekk sax dafa am lu ñu fay wax place bu nekk dafa am lu ñu fa war a wax soo demee ci ngénte ban waxtaan ngay waxtaane waaw ñëw ci ngénte bi naan liir bi yàlla na ko yàlla yërëm léegi borom ngénte ne la eh saa waay jëla say daal parce que lii du waxu fii wala mais boo demee ci dëj ne yàlla na ko yàlla yërëm lu ñu lay wax amin waaw waaw mais nga dem ci dëj naan wax néew bi yàlla na yàlla na jógaat nit ñi dañ naan kii normalul ndax loolu du place foofu waaw mooy ñàkk a xam jamono ak taarixa ñàkk a xam histoire ñu bëri ndeysaan ci sa mbokk jullit yi dañoo réere siira yonent bi alayhi salaatu wasalaam te diine ku ko bëgg a jàng génne ci siira da nga yàlla ko sa daawa du dem soo amee xam-xam foo ko def ñu dajji la c'est parce que siira yonent bi alayhi salaam dafa bokk ci lii dund ci lislaam li ñuy dund ci lislaam beneen bi mooy wa sunanul kawn xam àdduna bi nu muy demee ah contexte yi lii xew ñu nekk nii ñoo ngi dugg jamono ci ban temps lañ nekk nii ñu commencé sedd am na ñoo xam ne dañoo am rhumatisme am na ñoo xam ne ñemewuñ sedd léegi nag bu benn waaye ñuy ne ah man temps yi de wax dëgg yàlla sama yaram day commencé de sedd bi commencé rek sama yaram waaye nag gis nga na nga ragal yàlla da ngaa bëgg bañ a jàpp rek na nga jàpp laa la wax te sax booy jàpp amoo droit tàngal ndox mi ah ah yow nag sa waay yaay loolu nag ci lu mu bokk déet yow kay booy jàpp ñeme nga sedd demal nga jàpp ci ndox mu sedd bi rek nga bàyyi ko moom mu ay mu wut ay jumtukaayam su fekkee amul jumtukaay yu mu yu mu tàngale ndox ñu bàyyi ko mu daal di tiim kon loolu mooy alxulu muy ëppal fa am ay façon am ay sabab am na yu bëree bëri waaye comme du thème bi baat bi rek mooñ ci jublu woon mooy ëppal atajaawuzul xadd li shay ëppal ci lu mu mën a doon fa isa alayhi salaam abdullah isa jaamu yàlla la ëppal nañ ci moom yéegal ko yéegal ko ba ne doomi yàlla la ñeneen ñi manqué manqué manqué ba ne doomu njaaloo la ñaari benn yellu ci moo tax yàlla ne yaa ahlal kitaabi ey yéen ñooñu téere yéen yahuud yi ak nasaraan yi laa taxlu fi diinikum bu leen ëppal ci seen diine lan moo tax mooy diine lu bàyyeekoo ci yàlla la jalla jalaaluhu moom moo ko wàñce mooy shari'am yàlla moo naan lii lii la lii lii la waaye doomu aadama amoo droit ci diine yàlla di ci sos dara comme tey Sénégal tarixa bu tëll rek sos dara waaw ñuy sos ay fecc wala tiñ ne tey Sénégal kan am na place yoo xam ne boo fa demee ñeme woo wax sabar bokkul ci diine bi fecc ñeme woo ko wax de am na ñoo xam dañoo ñëw génne julli ci diine bi ñii ñëw génne koor ñii ñëw génne jàng alxuraan ñii ñëw génne aj màkk ñii ñëw génne affaire bi daal xam nga lan la ñu ne waaw ñu ne na xumb te dagan waaw na xumb te dagan de lépp ci diine bi la bokk cëm dañuy wax ba ci kaw rek daal ne loxo ci kaw bàkkaar ci suuf ñu ne nii ñu ne bàkkaar yi dañ na ah wala du ngeen koy dégg loolu yépp ci wàllu xulu la bokk yàlla nee na laa taxlu fi diinikum bu leen ëppal ci seen diine ji yamu ci de na wala taqulu nga lawaay bu leen wax alallahi ci yàlla illa alxaq lu dul dëgg allahu akbar mbokk yi buur bu tol na yàlla mbindeef mu ndaw mi tudd nit est-ce que war na am fit di fenal yàlla war na am fit di génn ay kàddu di ko jëme ci borom bi jalla jalaalu te dara du ci dëgg li ndigal la de wala taqulu bu leen wax alallahi ci yàlla illa alxaq lu dul dëgg jullit amul droit warul ñeme warul am fit di génne benn kàddu ci gémmiñam di ko jëme ci sunu borom jalla jalaaluhu subhanahu wa taala lu dul kàddu yooyu dëgg la war a nekk allahu akbar asamaan ñemewul fenal yàlla suuf ñemewu ko géej ñemewu ko jant ñemewu ko weer ñemewu ko waaye ñaari mbindeef yi rek ñooy wax ci yàlla te te du dëgg muy nit ak ginne yàlla ak màggaayam président de la république rek boo ko fenalee foo jëm ah léegi gars yi ne la offense au chef de l'état ñu takk la jëng yi sama waaye dóor la article lan seen article boobu offense au chef d'état ban article la article x acca mu goog waa allahu akbar su fekkee ñii rek lañu aar ba kenn ñoo waa léegi nag ku toll ne yàlla nga yëkkati ay kàddu yoo xam ne yow xam nga ne li ngay wax du dëgg lépp ay fen la ngay fenal yàlla waaw barki dem seetaan naa ci télé benn waaye mu ne rañaan na cinq jours maay Ousmane Ibnu Affan Ousmane mi ngeen doon dégg man mii la do Sénégal moo neex wala taqulu bu leen wax alallahi ci yàlla illa alxaq lu dul dëgg loolu nag mooy lan yéen ba yéen yahud ak nasaraan lii ngeen di wax jëme ko ci yàlla lii ngeen di wax jëme ko ci isa yéen yahud yi xam ngeen ne du dëgg bu leen wax jëme ci yàlla lu dul dëgg moom la yàlla di rectifier waaye ñun dañ ciy gis suñu bopp innama almasih naka isa messi almasih mooy messi moom la tukalooy naan memasel la almasih mooy raay mu wér ku mu raay mu wér huwa isa alayhi salaam wa luqiba bilmasih lu tax ñu tuddee ko messi li annahu mamsuuxun min azunub ay la zamba la ndax moom amul benn bàkkaar dañoo effacé ay bàkkaaram beneen bi mooy lu tax ñu tuddee ko almasih mooy danaan fekk ku judd amul ay bët bu raayee kanam gi rek bët yi bakkan yi géem ñi ngi ñëw danaan fekk ku am boos xuuge su ko laalee xuuge bi dem su fekkee ku feebar bu ko raayee mu wér su fekkee ku dee mu ne ko xum bi iznillah mu daal di dékki ñu tuddee ko almasih sunu borom nee na bu leen wax ci waa jooju xëy na lii muy def moo jommal nit ñi moo tax ñu ne kii kii kii yàlla la wala doomu yàlla la fekk yàlla moo ko may loolu sunu borom ne wala taqulu bu leen wax alallahi ci yàlla illa alxaq lu dul dëgg na ngeen yëg ne innama almasih isa almis masih boobu isa bnu mariam doomu mariama la rasulullahi yonent yàlla la gis nga de est-ce que yàlla wax na yàlla la est-ce que wax na rakku yàlla la est-ce que wax na magam la est-ce que wax na mbokkam la lu mu wax innama almasih naka mesi isa bnu mariama doomu mariama la waaye rasulullahi yonenti yàlla la leer na jaamu yàlla la yonentam la waaye wa kalimatuhu baatam la boo xam ne baatu yàlla boo xam ne alqaaha yàllaa ko sànni ila mariama ci mariam yàlla moo bàyyi mariam mu nekk ci àll ba yàlla yónni jibril parce que yàlla ay kéemtaanam chaque jour lay wone te jamono bu nekk la mu laaj loolu la leen yàlla di won jamono bu nekk la mu laaj yàlla yonent boobu lay yónni foofu jox ko loolu isa loolu la fekkoon jamono isa loolu moo amoon yàlla indi xale bi mu daal di judd yàlla yónni na jibril yaa ngeen suratu mariam jibril mu ngi fekk mariama ci àll ba bi ko mariama séenee muy ñëw mu gis jëmm góor la te moom jigéen la ma ngi ca àll ba lan la mariama wax inni auzu birrahmani mink in kunta taqiya maa ngi làqatu ci sama boroom maa ngi muslu ci sama boroom bu fekkente ne ragal nga yàlla kon am na lu mu sentir góor ak jigéen ci àll cundung kenn nekku góor gi lu muy xalaat agressé ko jigéen ki siif ko mu ne ko bu dee ragal nga yàlla maa ngi muslu ci sama boroom jibril commencé wax ak moom ne ko man ndaw yàlla laa yàlla ma yónni ci yow pour may la doom mu ne ko naka laay amee doom góor musuma laal c'est pas góor musuma laal ak sama loxo mais musuma sëy ah mu ne ko xaw ma nu muy amee de waaye loolu day sa borom wax na ko ba pare fi ñuy wax ñoom ñaar kàddu yi rek jibril ëf fii mu daal di ëmb mu ngoog ndeysaan mu commencé saalit nga xam ne loolu ku mu daloon démb waaye xoolal fii tey ci nit ñi yegg nañ ci yàqute xale bu jigéen day ëmb ci Dakar sol kilot sol silet ma ànd ak ki ko ëmbal mu jàpp ci loxo bi surtout nag guddi nag booru gee yooyu ñu dem ci jaaykatu sànni ñu ne yaa gaay gaay nam bi la àndal booy ca jëf ay gaay bi subhanallah la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndeysaan Mariama mu ne aka neexoon ma dee balaa lii di ñëw di dal sama kaw aka neexoon ma dee day waay dama waroon dee waay lii fan laa koy waxi ji su ma demee nit ñi naan yàllaa ma ko may nit ñi bon ñi nga xam ne gëmuñu dara kan moo may gëm walla ne ko eh mbir mi du sa mbir nag gis nga yow mbir mi du sa mbir fi muy wax rek martu daal koy dal xam nga nit ñi kay bu ñu doful woon war nañ xam ne kenn mënul ëmb ci benn fan ah biir biir ci benn fan nga am doom ci benn fan yéen ko yóbbu ko waaye nit ñi comme dañoo nar a alku du ñu xoolati kéemtaanu yàlla dañu xool ñoom lu leen neex yàlla ne ko boo amee doom demal léegi di nga am doom ndeysaan mu am doom yàlla ne ko garabu tàndarma gu dee googu boo ko yëngalee garab gi dina dékki am ay doom yi tooy xepp nga lekk suufu garab gi boo ci këddee sa tànk ndox dina génn nga sangu raxas xale bi laxas ko ci ay këyitam ba ngeen set ngeen dem dëkk ba xanaa kay lii yëpp nit ñi waroon nañu xam ne kéemtaan la wala mu daal di am doom daal di dem dëkk ba moo tax yàlla mu ne wa kalimatuhu baatam la kàddoom la goo xam ne alqaaha moo ko sànni moo ko wax kun fa kaana alqaaha ila maryam wa awsala laha wa ablaga laha iyaha wa hiya qawlu almalaikatu laha ilayhi inna allah yubashiruka bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa bnu maryam kàddu yàlla la goo xam ne daf ko jot malaaka mu eggali ko maryam mu daal di am doom mu gàddu xale du wàcc montagne yi ndeysaan jublu Jérusalem mu ñëw fekk dëkk bi yëpp taxaw ci jàkka ji di ko xaar seen ko muy ñëw rek gaa yi commencé di kobosante di wokkante di piisante muy ñëw yàlla waxoon na ko boo amee doom boo demee bul wax suñ la laajee ne leen inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya bul wax ak kenn de soo demee rek ne leen dama woor duma wax ak kenn tey mu wàcc gaa yi di wax eh sœur Haaruna yaa uxta Haarun eh frère sœur Haarun yow xam nga ne sa papa du woon njaalookat ak sa yaay ñu baax lañu woon waaw foo jëlee doom bi fa asaarat ilay mu ne leen nii ko am looy wax kaay wax ak kii gaa yi topp ko bu mu tëral ko ci berceau bi ñu wër ko nag waaw xam nga dañ ko doon wax dañ doon romb dafa romboon ñuy wax léeg dañ ko wër nag di ko bëgg a agressé di ñu wax foo jële doom ji nag kooku yabaate nga joxoñ leen ko qaalu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya ñu ne ko moom yow yaa ñu yëpp yow ñu leen la foo jëlee doom bi nga ñuy joxoñ liir bi naka la ñuy waxee ak liir bu tooy xepp ci ay sagaram tëdd ci berceau dafa mel ni xale bi liir bi loolu la doon xaar mu doon xam-xam ne ne liir bi xam nga liir nu mu tëddee ñu ne liir bi dafa dafa tëdd daal ne nii loxoñ càmmoñ bi sukkandiku tegale benn tànk bi ci beneen tànk bi mel na paa buy féexlu bu añee ba pare dinaan ataaya daan ne nii loxo ndeyjoor bi ci kaw rek ne leen inni abdullah ataani alkitab wa jaalani wa jaalani allahu akbar wa aynama kunt awsaani bi salaati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidi bi walidati wa lam yajalni jabbaran saqiya wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amut wa yowma ubasu hayya rek gaa yi daw départ tasaaroo ñii dof ñii di burëngu ñii muuma allahu akbar ñeneen ñi nga xam ne amoon nañ imaan xamoon nañ ne kii day ñëw ñooñu ñoo jege si kooku mooy Isa loolu nag leen yàlla di wax ne bu leen ëppal ci moom di wax loo xam ne xamul amu xam ngeen ko wax loo xam ne xamu leen ko kii yonent yàlla la baat la ay kàddu yàlla la boo xam ne yàllaa ko sànni ci Maryam wa ruuhun minhu ruu la bu bàyyeekoo ci yàlla subhanahu wa taala ay Isa kaana bi nafxa gis nga ci ëf bu isa ëf la woon jibril ruhullahi fi kammi wa dur'iha ci baati mbubb saydatuna maryam fa la jibril ëf doom ji daal di sosu waaw moo tax am na benn xutba bu imam kiski de wax ayna allazina yataajabuna min amri isa mu ne fa kayfa la yataajabuna min amri adam ñi nga xam ne dañuy yéemu ci mbiru isa lu tax ñooñu dañu waaru ci mbiru adama adama ak isa kan moo war a ëpp kiimtaan adama inna masala isa inda allahi ka masali adam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin yàlla nee na subhanahu wa taala misaalu isa daal ci yàlla moom dafa yomb trop mu ngi mel ne aadama yàllaa ko bind ci suuf ne ko nekkal mu nekk jeex na tàkk sunu borom nee na fa aminu billahi gëm leen yàlla bu leen gëm ne isa doomu yàlla la parce que du doomu yàlla fa aminu gëm leen bàyyi leen lii ngeen di wax ci ëppal ci mbiru isa naan yàlla la ci seen diine gëm leen yàlla fa aminu gëm leen billaahi yàlla wa rusuli yi ak yonent yi mu yónni waaw bu leen ci ëppal benn yonent bu leen ci jay kenn kenn ku nekk nit la anzilu naasa manazilahum wàcce leen yonent yi fi leen yàlla wàcce ngeen gëm leen ndax yàlla moo leen ko sant wala taqulu bu leen wax salaasatun ñett lañ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit naan nii di def nii ki mooy père bi ki mooy fils bi ah ki mooy lan ruugu sell gi yàlla mu ne loolu ay caaxaan la wala taxulu salaasa bu leen wax ñett lañ waaye du ñu ñett yaay ji doom ji ah yaay ji doom ji papa ji comme loolu nekk fee booru gin wetu aéroport ñett ñooñu wakaama ñetti ñooñu bu leen wax loolu de am na ñu nekk foofu wakaama xamu leen ko du ngeen ko gis ñetti ñooñu xale bi ci kanam papa ci digg bi yaay ji ci ginnaaw bu leen wax loolu de wala taqulu salaasa allahu akbar du ñu ñett mbokk yàlla du ñett de yàlla kenn la qul huwa allahu ahad yàlla kenn la yàlla du ñaar du ñett bàyyi leen li ngeen di wax yàlla du ñett ndeysaan barki démb damay seetaan benn benn débat benn borom xam bu tudd Mouhamed Arifi muy def ci benn scène waxtaan benn chrétien daal di koy woo laaj ko question ci mbirum sangu set mais da ko ne sangu set ci wàllu xam-xamu xam-xam rek lan lay lan lay tekki mu tontu ko mu ne ko ci wàllu diini mu tontu ko ñoom ñaar ci wàllu de ci débat bi waa ji yëgal ko ne man du ma du ma jullit chrétien la waaw mu ne ko ok léegi dama am ay laaj yu ma lay laaj laaj bi si njëkk mooy lan moo tax Isa kese nekk doomu yàlla adduna bi yëpp yàlla bàyyi leen doom benn doom boobu dong la am jëlul ñëpp nekk da doom waa ji ne ko sëriñ bi maanaam moo xam-xam boobu de xaaral ma laaj bu mu ko laaj mu ne ko aw moo xam-xam boobu bu mu ko laaj léegi mu ne ko jox ma sa numéro su ma jeexalee émission bi dinaa jël hors antenne. ñu wax ah. li ko waaj li ko sëriñ bi laaj mooy lan moo tax ngeen ne Isa doomu yàlla la yàlla àddina bi yëpp li mu bind yëpp mu jël Isa kese mu nekk doomam ñeneen ñi mu bàyyi leen. laaj yu bëri la ko laaj ci mbirum christianisme waaye waa ji mënul tontu. mu ne ko léegi damay jël sa numéro bu ma jeexalee woola almuhim yàlla nee na wala taqulu bu leen wax salaasa ñett lañ yàlla du ñett de kenn kese la moom sunu boroom du ñaar amul ñaar waaw mooy kenn ku amul ñaar bu la laajee kenn ku amul ñaar mooy kan looy wax yàlla keneen ku dul moom am nga ñaar ah yàlla rek mooy kenn mooy alwaahid moom la olof yi naan càppaaculi dégg ngeen baat boobu ah càppaaculi xam nga ko mooy mooy yàlla kenn kese la amul ñaar mu ne intahu bàyyi leen li ngeen di wax gis ngeen arrêté leen nag allahu akbar si ngeen baat yi ni ko yàlla waxee arrêté leen théâtre bi na jeex waaw li ngeen di wax nii na jeex arrêté leen ko intahu xayrun lakum mu nekk jàmm ci yéen bàyyi la ngeen di wax lan ngeen di wax mooy lan yàlla ñett la taxaw leen ci loolu freiné leen su ngeen taxawee mu nekk jàmm ci yéen xayran lakum na ngeen yëg ne innama allahu naka yàlla ilahun waahid kenn la subhanahu tudd na ak sellam an yakuna lahu walad muy am doom waaye yàlla jomb na am doom waaye gars yi doom ku manqué moo koy am da yàlla dafa mat doom ku manqué moo koy am ku am doom rek da ngaa manqué ku am doom rek ku manqué nga yàlla dafa mar da ngay dégg ñu ne la alkamaalu lillah sunu borom ne innama allahu naka yàlla ilahun wahid mooy benn yàlla subhanahu sell ñeel na ko an yakunu lahu walad muy am doom ndeysaan asamaan sax dafa bañ ne yàlla am na doom suuf dafa bañ ne yàlla am na doom ah montagne yi dañoo bañ ne yàlla am na doom d'accord ngeen yakaadu samawaatu yatafattar na asamaan mu ngi xotteeku bi mu déggee baat boobu wa tanshaq wa taxir limaasa an daaw lirrahmani walada wa ma yambagi lirrahmani ay am naa benn oustaz moo doon jàngal nan la ko yàlla yërëm su gaay ne woon wa qaalu taxasa arrahmanu walada mu ne ñoo mun a fen fen nañ de dañuy fen noonu la koy waxee su déggee aay bi rek wa qaalu taxasa arrahmanu walada mu ne dañuy fen ndeysaan wax na dëgg laay dañuy fen xataa jinne yi sax wax nañ ne gaay yi dañuy fen wa anna zananna an lan taqula al insu wal jinn ala allahi ñun yaakaaroon noonu nit ak jinne duñu fenal yàlla naan yàlla am na doom ndeysaan moo tax yonent bi nee na yàlla dafa wax wax ci doy waar yàlla mu ne kazabani ibnu adam doomu adama daf maa fenloo te ma maa yambagi lahu an yukazibani te warumaa fenloo ñu ne yàlla doomu aadama ban fenloo la la fenloo yàlla mu ne doomu aadama nee na su deewee ba ñu suul ko ci suuf ba yax yi fëndax kawari tasaaroo yàpp yi ñoppatiku mënuma koo delloowaat mu nekk nit allahu akbar yàlla ne waxuma loolu sax waaye li gën a rëy li ma doomu aadama mooy satama nii ibnu aadam ibnu aadama di ma saaga man yàlla jàkkaarloog man yàlla borom asamaan ak suuf di ma saaga ñu ne yàlla ban saaga la la doomu aadama saaga yàlla nee na doomu aadama nee na man dama am doom saaga la nangu ngeen saaga la wala nangu leen ko tey jii fii ci jàkka ji ñun ñu fi toog suñu waxoon kenn papaam day ngénte benn koñ te amu fa jabar booy yow xam nga sa père mu ngay ngénte fa yow kenn fee la ne la booy sa père mooy ngénte fee yaa ngi dégg musique yooyu nga ne waaw na pourtant sa père mooy ngénte de ba pare teg ci reetaan nag looy wax waa jooju boo ko dankee kurpeñ dóor ko ko waa ji du taxaw loolu saaga la léegi nag ñu bàyyi ñëpp wax ko yàlla wa yàlla mu ne satamani ibnu adam doomu aadama daf maa saaga te pourtant loolu yellul amaa yambagi lahu loolu yellul ci moom ñu ne yàlla nan la doomu aadama saaga yàlla mu ne doomu aadama nee na man dama am doom ma laaj leen beneen laaj bu ñu jëloon benn kuy kuy wala ñu jël benn fas ñu indil ko xar bu jigéen mu tëbu ko mun na nekk mun na nekk lu tax mun na nekk bu ñu jëlee benn benn benn benn gaynde mu tëbu benn xar mun na nekk mun na nekk kon aca bopp baax na kon tontu ngeen seen bopp innama allahu naka yàlla ilahun wahid kenn kese la subhanahu sell ñeel na ko an yakunu lahu walad muy am doom lahu moom yàlla lu muy doye doom kan lay doye doom lahu ma fi samawati wa ma fi l ard kan la koy doye koo xam ne moom moom moom asamaan ak la fa nekk moom moom moom suuf ak li fi nekk ak ñi fi nekk moom moom asamaan ak la fa nekk ak ña fa nekk lu muy xëccoo benn doom in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahmani abda kon lu muy xëccoo ne benn doom la am lu mu koy doye ki moom lépp ba pare moom moom moom lépp waaw yaa moom lépp ba pare nga nga ñëwaat naa ne kii de kii de sama doom la moom te ñëpp yaa leen moom est-ce que loolu yéen a maana mi ngi mel ne kon boo nee kii de sama doom la kon ñi ci des moomoo leen waaye yàlla mu ne ñëpp maa leen moom te kuy ñëw ci man ëllëg yowmal xiyaam dégg leen baat bi de in kullu la wax bàyyiwul kenn kullu boobu bàyyiwul kenn man ba pare mu utiliser ism mawsul man fi samawati wal ard illa aati rahman abda kon yàlla jalla jalaaluhu lahu moom moom moom maa fi samawati li ci asmaan yi juróom-ñaar milkan wa xalqan wa abidan bu dee milk mooy nguur gi wa xalq bind abid jaam yi ñett yëpp booboo la yàlla moom mu ne wa maa fil ard ak li nekk ci suufit de moom tamit kazalik waaye wa kafa billahi wakiila wa kafa doy na billahi ci yàlla wakiilan xafiisan muy kuy garde lool sunu boroom jalla jalaaluhu xafiisan wa shaahidan aliman borom bi subhanahu wa taala moom dong moo doy lépp mu koy wattu xam ko waaye seede ko amul leneen keneen koo jël cofit la am amma yàlla lépp amul luy xew jàngeen ko sax yàlla mu ne ci garab yi xobu garab garab gi yàlla mu ne xam naa ñaata xob la xam naa yi wow xam naa yi tooy xam naa yi lax xam naa yi wadd yàlla réeréwul dara jalla jalaaluhu lépp xafiis moo ko watt mooy wakiil moo ko méngoo moo koy watt moo koy garde ana keneen waaw Moussa dana woon yàlla yàlla lu tax doo nelaw yàlla mu ne ko maay wattu asamaan ak suuf dangaa bëgg xam lu tax duma nelaw mu ne waaw yàlla mu ne ko Moussa am dencal ma nen bi waaye nag na nga ko téye nag bu ko teg fenn téye ko Moussa téye nag téye nen bi yéen dox ba ngoon mu ngi ko téye rek munu ko teg parce que loolu la ko yàlla wax mu daal di gëmmentu mu jayeexu rek nen ba waddu toj ba mu xëyee suba yàlla ne ko Moussa ana li ma la dénkoon mu ne ko nen bi mu ne ah mu ne toj na de ah lu tax mu toj mu ne ko damaa sonn waaw toog rek ndekki gëmmentu naa mu wadd yàlla na ko manit bu ma gëmmentu woon rek asamaan si fekk si leen wax da ngeen dégg laa taaxusuhu sinatun wala noom fii nag lu nit ponkal ponkal ponkal ponkal boo wàccee bañ tegal la reer bi nga seetaan télé bu yàggee nga commencé ñu ne la tonton yaa ngi nelaw ngaa nelaw ma waaye nelaw ma de ndeysaan benn chauffeur kalandoo xam ngeen ko de moom la ñuy tooñe benn la den ndax si kim bu gudd day def su dee su ñëwee garage bi rek gaare droite ñuy def ñuy togg ataay rek mu commencé di nelaw bu ñu koy jox lëbal yeeku ñu ne ko benn benn yaa ngi nelaw mu ne nelaw mu way gars yi daal di sonn ci moom benn bis mu ñëw toog ci chaise bi rek mu commencé nelaw rek gars yi bàyyi ko naan ataay ji ba mu jeex nit ñi ñibbi gardien bi bàyyi ko mu toog tëdd toog ci chaise bi rek naan nii waaw ba waa ji dégg ñu salaatu mu ne ko benn mu ne ko nelaw ma waaye mu ne ko waa nelawoo mais jógal jàpp julli suba nelawoo kay jógal julli fajar nelawoo de jógal julli fajar gars yi nee nañ kenn lañ mu sox da ngaa nelaw mu ne waaw daa dee koo de da ngay nelaw rek mu ne déedéet nelaw ma waaye nelaw ma de nelaw ma nelaw ma damay forbat rek waaye forbat mooy la da ngay nelaw jógal tëddi mais yàlla moo leen di wan ne kattanam foofu allahu akbar loo nganda nganda nganda yàlla roof la ko nga commencé naan nii mais saa sax bu dee kurus la mu wadd bu dee portable la mu wadd bu dee télécommande la mu wadd bu dee mbaxle mu la mun a këla ci suuf wala kaala gi mën a gaa yi laaj alaaji Malick alaaji Malick waaw ku doon wirdu moom wirdu ba ci ak nga gëmmantu kurus gi wadd ban per ngay jàppaat mu ne deet njàpp mi lañ war a seet waaw njàpp mi lañ war a seet waaye kurus gi kurus gi kay war ñu ko xool ban per ngay jàppaat waaye dañ xool ndax waa ji am na njàpp ku nelaw ba kurus gi nga yoroon wadd est-ce que njàpp moom mën naa julli kon mbokk yi loolu mooy darsi tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu